fàttali bi nga xamante ni jóge nañ ci di la baalu ak te di la bàyyi nga baalu ak ñi nga xamante ñoom ñooy membre moagé wala ñi nga xamante sopp nañu Thione Bocco waaw merci beaucoup euh, maa ngi baalu ak Sénégal yépp di baal ñëpp ak di ñaanal Sénégal di ñaanal ñépp ñu nekk ci jàmm euh, ñaan Sénégal yàlla taxawu ko ñaanal ñëpp yàlla sàmm leen may leen wér-gu-yaram gudd fan sàmm seen njaboot président def na ko mu nekk li nga xamante ni pratiquement je dirais depuis plus de trois ans nit ñaa ngi toog di ko xaar mu am benn débat bu nga xamante ni yàgg na am autour d'une possible candidature du président Macky Sall démb finalement leeral na ni léegi lu ni mel féete na boor ban appréciation ngay def ci président ni mu annoncé ni du bokk finalement ci ci ci jongante présidentielle 2024. dañ koy rafetlu dañ koy rafetlu ginnaaw ba ñu xeexee euh, wax ko fépp. ne warul nekk candidat bokk aussi suñu bokk si kuréel boobu ñu tuddee F24 nga xamante ne ne dañu bokk na si poñ poñ yi ñu taxawal ne président Macky Sall warul def troisième mandat ñu wax si jëf si euh, moo tax dañuy féliciter d'abord ñëpp ñoo xamante ne ne regroupé wu nañu pour ne loolu mënul am mun nañu wax ne c'est la maturité du peuple sénégalais qui s'est exprimé dans cette affaire parce que tey soo doon def sondage da nga naan l'écrasante majorité des sénégalais bëgguñu woon président Macky Sall def troisième mandat non seulement bëgguñu ko waaye wane nañ ko ci anam yu ne ku ci ne ak fànn boo nekk donc euh, tey mu jël décision bi nga xamante ne ne moom moo fësal ne nekkul candidat donc ñu koy rafetlu di ko ci félicité di wax aussi Penda ne xam nga démocratie Sénégal dafa doon loo xamante ne ne dafa nekk en perpétuelle évolution dañuy wax souvent ne euh, Sénégal ba ñu yàggee voté yàgg na boobu lañ commencé ne démocratie am na déedéet démocratie toujours dañ koy xeex mu am ay avancées yu ñu si am tolloon nañ moment boo xamante ne ne multipartisme limité la woon président Senghor dafa ne bon koo xam ne dafa nekk courant libéral kii nekk courant marxiste léniniste kii nekk courant conservateur yéen mën ngeen def parti donc ñoom ñett lañu woon ak moom ah euh, muy muy euh, Euh, président Wade di Cheikh Anta Diop di Mahmoud Diop ak moom euh, ñu dem avancé ba si biir président Abdou Diouf ñëw indi le multipartisme intégral ne jàkka jaa nga ko bëgg a nodd noddal euh, demoon nañ benn moment sooy dugal si si si urne bi da ngay ñëw gars yi ñoo lay defaral carte bi jox la ko nga dugal amul woon isoloir pourtant loolu yëpp ñu ko doon tuddee démocratie mais yooyu yëpp nekkoon na ay situation yoo xamante ne ne euh, indil woon avance si démocratique ñu dem ba ay isoloir am dañuy fàttaliku ne wala fàttali que ne président Senghor vingt ans la def président Abdou Diouf def vingt ans président Wade ba mu ñëwee def douze ans bëgg a tenté def troisième mandat boo xam ne dafa waxoon du ko def ba mu ko tenté antuwul si uni yi ñu gañe ko mais deful forcing mu daal di taxaw ne Euh, kii moom a gañe mu woo ko félicité ko Sénégal yëpp ñu kontaan si man mii di wax ak yow am naa entretien ak président wadd pendant près de trois heures de temps près trois heures de temps après ba mu nekkutulee président de la République ma jële si lu bëree bëri bëri bëri xam naa loolu dinaa si mu sa wax donc mu def avancée bu am solo président Macky ñëw euh, troisième mandat boobu sax tànte wu ko maanaam mënoon na ko tànte dem ba si urne ya peut-être ñu gañe ko mu am taxawaay bu président Wade am su boobaa. mën nañ ko mais ma daaneel foofu rek nga baal ma. donc le fait que mu bañ ko tenter rek pour man jël na décision boo xamante ne bu am solo la si jalon bu ñuy posé si démocratie parce que dafa am fu mu fu mu mettre bi laa baar suba kenn xalaatul si àdduna yaakaar naa ko taxaw na dee def plus de deux mandats. waaw waaw finalement je je pense que loolu tax mu ñu rafetlu bu baax a baax a baax lu mu wax parce que ñu bëri dañ leen naan euh, dafa respecter constitution et cetera oui dafa respecter constitution bi waaye euh, gis nga euh, lu ñuy lu ñuy gis ñu wala loo xamante ne dañ koy duut baaraam ak réalité parfois bokkul nguur jóge ci yombul président Abdou Diouf ba muy féliciter président Wade ñu bëri si ñu àndaloon ànduñu ci woon. président Wade ba muy félicité président Macky Sall gisoon ngeen sax defoon nañ ay score génne ko ne moom moo gagné mu teg loolu foofu yëpp dem félicité ko c'est parce que toujours lu muy àndal la et je pense que moom si boppam du ñàkk am na pression bu rëy rëy rëy bu mu am si ay ñoñam et tey euh, li am solo mooy ñu xam ne ne résister na à toute ces pressions la nekkul candidat comme ñun nuñ ko bëggee woon ni ñu ko ñaanee woon ak niñ ko menacé woon parce que ñaar yëpp lañ boole dañ ko ne dañ lay ñaan si njekk comme loolu nga wax nga bañ a nekk candidat waaye soo nee da ngaa forcé pour nekk candidat dinañ jàkkaarloo ak yow te yàlla xam na ne pare woon nañ pour jàkkaarloo ak moom parce que ñun dañu bokk si ñoo xam ne dañ leen a tëj ndax mbirum troisième mandat dañ leen dugal si kaso ndax mbirum troisième mandat ñu ànd si ak président Macky Sall moom si boppam donc mënuñu woon accepter tey mu mën a taxaw ne dafay def troisième mandat si loo xamante ne ne moom si boppam xeex na ko si loo xamante ne ne moom si boppam am na si taxawaay si loo xamante ne ne moom si boppam wax na ñëpp dégg ko du def troisième mandat parce que tout simplement troisième mandat bokkul ak lu mu waxaale woon ak askan bi donc tey su taxawee ne euh, man de pare na pour daal di euh, bàyyi nekkuma candidat dañ koy rafetlu mu doon loo xamante ne ne vraiment euh, lu ñu rafetlu la te jàpp nañ ne euh, Sénégal loolu la mérité si euh, mbirum démocratie loolu la mérité si position yu mu war a am. ci ci ci côté opposition bi bu ñu leen xoolee depuis lors ngeen yàgg ngeen yàgg porté combat au troisième candidature bi ni voilà président warut a bokk warul samp ndëndam comme si président da leen waxoon ni day bokk est-ce que tey amu leen amu leen leen tuuti regret par rapport ak li ngeen yàgg wax li ngeen yàgg véhiculer comme message pour combat bi ngeen yàgg ku ba sax tout récemment ñu gis F24 taxaw est-ce que tey amu leen tuuti regret par rapport ak lu ni mel. au contraire je pense que su dee président am na pression ci camp peut-être lu gën a déterminant c'est la contre-pression bu am si beneen camp bi bu jàkkaarloo ak moom euh, dañu ne fagaru moo gën faju. mais président ni ñu ko déggee ni mu wax grand rôle ku nga xamante ni am na pression. dafa rôle ni décision bi moom la yàgg am. waaw non dama bëgg wax ne mu am si camp moom. nga xamante ne leer na moom si boppam nee na. site euh, na yéen gis ngeen ko maire yi ñu ñëw taxaw. ñi ne ko non munoo bañ a doon candidat am na sax ñu ne. soo nekkee candidat haute trahison la soo nekkul candidat am na sañu dem ba wax loolu waroo trahir peuple bi et cetera mm-hmm. donc il a reçu une pression su amul woon contre pression su amul woon ñeneen ñu taxaw ne ko non doo nekk candidat déterminé wu kon peut-être que pression boobu dina ko yóbbaale. parce que foofu lay waxee nii cest gisee ni am na pression bi nga xamante ni moom subir na ko ci biir partem wala ci biir bi dégg nañ fi sax ku mel ne Oumar Youm taxaw publiquement ni ko boo nekkulee candidat keneen kan fi teg keneen koo fi teg keneen parti bi day tas mais terewul lu ni mel yëpp jël ko euh, teg ko de de de côté renoncer à possible candidature ce que lu ni mel foofu laay waxee nii c'était pas bien c'était pas réfléchi bien avant nekkul woon li nga xamante ni moom mos sa nekk dogalam depuis muy bind que na am xam nga fu mu toll nii mënut mënatuñu c'est trop tard ñuy dugg ci xelam. parce que euh, boobu ba léegi waxul woon mais ñëpp xam nañ tamit que ay jiixi jaax am na nii oui nii non et cetera euh, la question juridique est réglée peut-être il a fait exprès peut-être c'était pour monter la tension ba ñëpp jàpp na ne dafay def mun a defuma. pour gën a mën a génn par la grande porte peut-être aussi c'était calculé mais loolu amatul solo. parce que li am solo non man li ma li ma li ma li ma jàpp mooy euh, toute personne lu Montesquieu waxoon rek tout personne qui àll pouvoir et tentée d'en abuser maanaam tentation wu def troisième mandat jàpp ma ne mu musu koo dugg man jàpp ma loolu jàpp naa ne ne dafa am lecture politique xam na ne doon na loo xamante ne ne waru ko def mu jël décision def ko mais su doon amul woon benn pression su doon lépp naayis na ñëpp ne nañ ko gongo jàpp naa ne kon da koy def. d'accord mais ndax mais y' a y' a eu quand même décision sur surprendre na la Demba. xaaroon man man nag sama laajal sama entourage am na ñu ma woo si di ma félicité j'ai toujours dit que du ko def. et à chaque fois mu pose ay actes sax yoo xamante ne ne day nuru ne da koy def. Mm. suñ ma waxee dama ne non du ko def. Mm. parce que moom laa la wax sànq ma ne la. ne serait-ce que moom nga jàpp na ne am na lecture politique rek waxuma nag question de morale wala état d'âme wala yooyu je te parle de lecture politique oui. le fait ne moom mu am lecture politique rek war na ko mën a permettre mu bañ a def troisième mandat donc jàpp naa ne ne il est quand même assez intelligent pour ne pas faire un troisième mandat moo tax man à chaque fois nit waxoon ma dama koy naan mënu ma la tegal des éléments objectifs mais li ma la mën a wax mooy jàpp naa ne du def troisième mandat maintenant fu fu may daan si loolu mooy que ne fagaru moo gën faju dajaloo bu ñu dajaloo pour ne waru def candidat c'est une démarche préventive loolu la ñu koy waxee ci tubaab une démarche préventive mooy euh, jëlagoo décision bu leer yaa ngi junj ñi ñaa ngi lay ñi ñaa ngi taxaw di la investir un peu part parce que ñeneen ñi aussi taxawuñu boobu ba léegi ñu ngi koy investir ñu ngi def ay déclaration booy suñu candidat théoriser deux deux quinquennats et cetera gars yi tooguñu te ñi koy def ñëpp entourage am lañ nekk am ay ndombo tànk yu fort ñu deful loolu yëpp dàq na leen daanaka ñu taxaw ne ko mënoo def candidat dàq na leen donc y des prémices yi wane na ne mën na peut-être tomber ci loolu moo tax le fekk ñu daw fagaru si loolu taxaw si temm ne loolu warul nekk je pense que loolu war nañ ko rafetlu maintenant li am solo mooy romb nañ ko parce que nekkul candidat fi nga daanelee nii euh, démb dañoo dégg ku mel ni Mimi wax ko dégg tamit ku mel ni Malick wax ko ni y a rien de nouveau il n'a fait respecter la constitution mais yow dégg nañ la démb juste après le discours du président nga def benn vidéo sur sa page Facebook di ko féliciter di ko rafetlu ndax kon da nga bokkut ñoom gis-gis ñoom ñi jàpp ni jaruñu koy féliciter parce que y de nouveau non jar nañu koy félicité moom laa la wax acte bu mu posé c'est un acte historique loolu kenn mënu ko dindi dama la relatel depuis euh, président Senghor nekk fi ba léegi acte yi ñii di posé moom acte bu mu posé c'est un acte historique parce que prédécesseur am tenté na ko waaye bañ ko gañee ay la yowén taxaw na ne gañe nañ ma daal di joxe pouvoir bi ci jàmm dem ci jàmm ñëpp félicité ko mm. ba fii ñuy wax ak yow c'est une fierté pour sa Sénégal mm. moom jotul sax tenté Ah. donc c'est un acte historique au ah. moins par rapport suñ koy comparer par rapport ak li xewoon yàggul parce que su dee ko question juridique la ku si ne am nga sa théorie kii mën na ne mën na parce que lii kay ne mën na loolu la débat mës a nekk ñun dañ gën na ne mënul nekk candidat à tout point de vue moral juridique tout mu warul mën a nekk candidat moom peut-être mën na gën na ne non du point de vue juridique c'est réglé et cetera peut-être que mënoon na jàpp ben nañ dem conseil constitutionnel arbitré ñu. il a dit hier d'ailleurs voilà na ko def peut-être. mais su ko deful yoon may na ma ma bokk. waaye man maa bëgg sàll ko. waaw pour man yoon may ko ko mais su dee moom jàpp na ko. yoon may na ko malgré ça demul mais loolu da nga ko siy félicité xam nga li tax parce que amul lu koy teree dem déposer comme ñëpp conseil constitutionnel mooy arbitré loolu mooy yoon su dee si yoon rek la ñuy wax xam nga dañu ne dafa respecté yoon su dee respecté yoon rek la mënoon a dem déposer comme ñëpp. su boobaa conseil conseil su ko waxee dangay nekk candidat dëkk bay toj mais su ko neexee mu dem nekk candidat maintenant urne yi lañ ñuy séparer mais su dee loolu yëpp daf si génn te xam nga tax mu gën a am solo mm. ñu war ko si euh, delloo njukkal non parce que man gëm naa ne su waxoon démb si guddi ne day nekk candidat démb si guddi la dëkk bi commencé woon di jax loolu man gëm naa ko le fekk mu mu mu mu wax loo xamante dafa indi dal si réew mi parce que ba ko président du waxee dafay nekk candidat ay nit gaañoo nañ fi dañuy waxante dëgg am nañu fi de am na ay problèmes yi fi am ba mu dem ba nekk candidat ba urne yi wane ne warul jàll mu soog a félicité ñi ñu tàccu mais si diggante ba am na nay dégâts dégâts yooyu yëpp soo ko épargner Sénégal pour man dañ la si war a félicité. d'accord mais ci loolu grand euh, dañoo gis tamit euh, ni. avant ñuy dem ci li nga xamante ni moo di dialogue bi ñu bëri doon ruumalaat ni dialogue bi dara tax koo jóg lu dem négocier li nga xamante ni moo di candidature bu président Macky Sall am ñu nga xamante ñu ngi doon joxoñ baraamu tuuma ñi nga xamante ni ñoo di taxawu Sénégal ni dañoo bëgg dem jàppale président ngir mu teg li nga xamante ni moo di troisième maanaam en acceptant d'aller à ce dialogue lu ni mel tey président faxas na lépp teg ndax jàpp nga ni tamit dialogue bi dafa influer bu baax a baax ci décision bi nga xamante ni président jël na ko am waamte non soo déggee nu mu waxee ça n'a rien à ak dialogue bi mais dialogue bi ñun ñun par exemple invité dañu mais demuñu si. parce que dialogue bi tamit la question du troisième maanaam euh, de de cette euh, candidature a été posée sur la table